fen jaruma jaay waaw na sa xel dal man si nag nit ah. naka di borom kër jigéen ñi sax léegi fenatuñu jigéen ñi sax léegi fenatuñu waxuma laa góor yi léegi ñuy naka di fen <laughs> jigéen fenatul waxuma laa góor ñuy naka di fen waaw jigéen yi fenatuñu góor ñuy naka di fen yow doo rus <laughs> da ngaa defe ne da am ndam da nga bëggoon maa fàttali ne ñu am putin putin. waaw ah. ah, doo ko gis. doo ko gis. ma doo ko gis. xale bu ndaw ndax magu jëm ngay ngay ngay di di di duul diggante nit te loolu ngay wax. am na maa war si yow. waaw am. Timodou Sy nag kaay ma wax la. Timodou Sy li ma la xamal. waxal bis bu ma ko waxoon. waxal dëkk bii tax waxal la ma xamal. dama lay wax rek de li ma la xamal bu ma ko waxoon. man daal dëkk bii xar. kenn jàpp ma waaw may jël xale bu ndaw. waaw dox si tànk ci douche bi. yaa fen yi ah ñu may jàpp ah fen yi. ah fen yi waxoo dëgg. c'est pas vrai da ngay sos. yow ngay non privé. yow ngay non privé. yow ngay non privé. yow doo ma bugg ba àddina tukki. yow ma ni duma la bugg ba laaxal. yow maa yow si ma la gomes ma. déggoo li ma la wax. mel boo laaxara du ma la bëgg man damaa ñaan yàlla bokk ak yow ay bàyyi ma yow may nekk di def lii dama ko def pour soo jógee mooy noqal la léegi sa kanam <laughs> man aw ma dara lu may ragal <laughs> may nekk di wax ñàkk fayda doo rus sax doo rus kii dama ko bëgg yem ci moom waaw yow man kenn taaju ma man <laughs> damal nga sama jabar mu ngi lale mun a fen a doo rus koñ bi yëpp waxal nañ koñ bi jigéen yëpp wax nañ ak mag nee nañ yow mag buy dul gili xoolal <laughs> eh. sëkkuma ak yow gili gili de. eh non non non xoolal eh. sëkkuma ak yow gili ñoo bàyyi sekkuma ak yow giri giri kooku kooku dama lay wax rek waaw bañu ma <laughs> da ngaa <laughs> da ngaa ruus da ngaa yow waay yow xam ngay wax a fen am cinq mille cinq mille bi cinq mille man maa jox cinq mille fan cinq mille ngay gis ko ah, ah. yaa mun a fen xale bi ay jaa yaa jox a doomu nga yow domm nga yow domm nga yow yow yow domm nga bokk naa ak yow kon yow domm nga yow waaw doo rus sax nga waaw seen bi ñàkk a fayda waroon nga ma xool <laughs> doo rus doo ma gis na boobu da ngaa yéeg merde boobu da ngaa yéeg waaye am ngay wax waaw sang xale may ñu jàmm demal ngay sangu ji waaye noppil bàyyi sangaate forom nga toll bàyyi sangaate may ma da ngaa forom bàyyi sangaate <laughs> gili gili gili gili gili gili pare nga yéen a ñàkk fay dëkk dëkk dëkk dëkk man daal man la yàlla teg nattu rek indiwuma benn kër loolu kër gu ponkol ne léegi di gili gili ak ko kaw mi yow kii kaw yow kaw ko dëgg kaw mi ne sa def ko ne sa kër gi waaw wax ma loolu sa kaw ku hmm. kaw laa la gi ba nga xëyee dem marché. fàkki na génn samay nopp ak sama bët ba ma may fee laa leen romb kaaw ak mbenn. kaaw ak mbenn. kuy mbenn. mbenn mbenn sër mbenn si kër <laughs> di sangu ji. ma àggale ma ma romb leen fii mbenn sangu ji. <laughs> kaaw daf ko fee na ko ma sang laa. génne 5000 jox ko. Eh, ba ànd ak mbenn ba dem ci si biir tëju. ni jaay bàyyil di sosal kaaw. mais mbenn euh, kii euh, euh, mami. Mm. man du sa morom. ma ko jëmm di ko ay nijaay da amul ma intérêt man ma koy feneen maa leen gis. kaaw sa ñaar dugub mbenn bu dul dara sax mbenn dina nangu lool. mbenn bañ na de mbenn bañ na ba sonn kaaw ko forcé jox ko 5000 francs naa ko noonu kenn ko yëg mbenn bañ na ba sonn. mbenn mu wow bët mi moo bañ. mbenn daa bañoon. benn daa bañoon ni ko man kaw loolu ànduma ci kaw moo ko fas fas ko ba ànd ak moom. Mm-hmm. man nag ma dem taal taal ba wax fa kenn ni ko kaw nga sang ah, kaw nga sang mbeen. mbeen mbeen mu nangu. mbeen daa bañoon kaw ko forcé. mais tamit eh, a forcé mbeen mii. mbeen bañoon mais na xam ne mais kaw gi ne xaalis jox ko jox ko junni. di ko wax ay wax yoo sax amul bopp amul genn ba mbeen ànd ak moom du ko xaw ma ko man nag maa gis. man ku ma woo ba man ne lii man maa ko wax. yow nga dem ma ma dem ma dem ma dem ma ko fàkki naa def dara nga dem di ko wax fàkki man ko. yow waxuma la ko nii. Eh, waxoo ma ko de dama laa ah. dégg ngay këkkoli kaaw. waaw ah, kon man waxuma nii kon man damaa ŋaay rek kon waxuma man kon man man kon man waxuma nii kon man wax nii du wax. yow bala ngaa wax mbeen gis nga mbeen ak kaaw doo ma ñëw wax ma ko du mbeen di sama mbokk. waaye lu ma def nii yow lan laa def kon damaa moom xanaa man balaa nga koo nettali fekki ne doo ma ko wax. waaw nettali nettali rek oh, daa jaar fa jaar fii rek nettali boobu nettali nettali daa daa jaar jaar si yow benn la rek. mbeen ma jëm ak jëm ak moom mooy mbeen deful dara lépp kaaw la wax naa wax naa wax naa wax jëm wax na yow dégg nga li nga ma def noo ko mu munee ah yow war nga maa bay dem di gën ak cas te boo xamee cas maa tax yow cas xamee woo ko lu dul si marché bi te maa la ko présenté nga wàcc nga wàcc ma dem di gën ak moom yow lu tax ngeen baadoo la. lu lu sama yoon nga may wax. li ma gis ci sama koo gis ci lan nga gis ci cas te gisoo ko si man. yow ma li ma gis ci cas su ma ko gisoon ci yow du ma la bàyyi dem xoole cas. yow lu ne defal naa la ko ci kër àdduna lu ne lu ne rek def naa ko ngir di dab sa baneex yow gisoo loolu nga dem di gën ak cas te boo xamee cas maa tax. intéressé ma. yow lu ne boo lekkee macaroni man boo lekkee pët waa man cere baase boo ko lekkee man la buñ la siimalee cere mbuum maa tax. amoo leen looy def lu dul dem wacc ma man boo génnoon nag keneen sax ma ni waaye dem lu di liggéey nag sama meilleur ami Thiass nga xam ne ñoo nekk loo ci marché bi di liggéey nga wacc ko nga wacc ma dem di gën ak moom. déggoo li ma li ma gis ci Thiass su ko gisoon ci yow du ma la bàyyi bay xooli Thiass bu ma sonal. dinaa la sonal nag ndax du ma la bay de du ma la bay loo si bañut nag bañu ma ko si barke Fapes du ma la bay leer laa lay wax nag. de loolu sama yoon ci dig ma bàyyi doo ma bàyyi kooku yow la rek boo ma toppee yaa xam man topp ma la cas laay topp. gis nga nag yaa ngi may bëgg a neex doon dañuy neexoon nga ma bu yàgg sax waaye yaa may bëgg a gën a neex da nga wax bi len laa lay yëgal cas moom xaw ma cas xaw ma cus waaye fu ma ko fekk dina am problème yow nag moom li ma lay wax leen la daa am lu may seet mais kon piip ma noq la fii léegi. koy yow piip ma noq la. billaay boo waxaatee biib fii ma noq la. maari piib. eh maari pipiib laa la wax. co noqal. li nga ni pipiib moo la may saas ak li séeréer du dóor jigéen. eh am na lu may seet. allahu akbar am na lu may seet mais kon ma noq la fii léegi. yow rek leen mënoo dóor sax muus bay dóoraateeg sa kanam gu bon. kanamu kan. bul ma lijjanti. gaz bu ndaw foo jëm. yàqu naa waay hee kii de bu ma bayee mooy yàqu naa nag yow cas mi nga topp xamul lu dul may kat yi omelette doo nga fa am ak pombiteer te lu dul loolu jox naa la ko macaroni ay waay ñàkk naa waay hee. waa Mbène Mbène ni nga defati nag. xanaa def. kaaw mi nga dugg ci bi douche bi di sangoo moom nag nga bàyyi ko mu naan dalay sang. ku la wax lool. ay Mbène kañ nga wow nii bët. kaaw sangu de. men yow kañ nga mel ni yow sama nijaay nii la ñu yare kaw sanguma siwo bi la ma doon dugalal ci biir douche bi siwo ban siwo ndox bi dafa diis yow war ngaa sëkk kaaw lenn ba muy gàdd siwo ndox jëkkëru jàmbur nga naan ko dugalal ma siwo ndox ci biir douche bi waxuma ko de moo ne ma xaama yóbbul la siwo bi ci biir ma ne ko yóbbul ma ndax dafa diis yow yow ni nga toll attanoo siwo ndox nan laa toll yàbb ma xamal na kër gii dara du fi umpe gis nga ni ma def ba yëg ko noonu la def ba jabaram yëg ko hmm. waaw yëg la yow xam nga Fatou Kiné yëg na ko dangay laaj wala dangaa na ko carrément. yëg na ko waaw carrément. ah, ah loolu méttiwul. waaw ah, am fit nag sa am fit nag nag dama ko doon def nii naan moom la wala du moom ndox la wala wala wala bisaab la waaye leer na ma ne moom ndox la Fatou Kiné de waxoon naa la ko ne leer ni coow loo fi am ni nga wéetoog moom loolu yëpp sax day sori danga maa ñëwoon seet ma. faalewu ma Fatou Kiné lijjantiwu ma Fatou Kiné ku dend ak Fatou Kiné sax. faalew ma ko xam nga la laa bëgg <laughs> may ma jàmm ak ki Fatou Kiné dégg uh-huh, uh-huh. Fatou Kiné bu fi indee kilo fekk fi ñaari kilo waaw dana lenn seen ñaari kilo ak moom kilo di ngeen ko weetoo na ma duma xeexalewu ma kenn amoo doole ragal nga moo tax ñu lay ñu lay def li mm-hmm. ci biir kër gi ragal nga waaw naa yàgg doon ragal gis nga sama sagaru sëy bii dooma ko tasal ngoon bu ñu añee nga gàdduwaat say bagage ñibbi la ma ci doon xaar da nga ci doon ragal sax baax na mën ngaa ñibbi man naka jékk xamoon naa ne sa gan ci biir kër gi balaa moo jeex sama naqaru xor dina jugaat balaa loolu bi ci fekk sagaru sëy laay rot sëy yow mut mën ngaa dem ñibbi buñu neex sax damaa ne ñibbi ñibbi ñibbiwu ma tey ñibbiwu ma suba ñibbiwu ma ginnaaw suba ñibbiwu ma sax ginnaaw waay na nga fii damaa ñëw dëkk kër gi def ko sa bopp bi ñibbi ma man maa fi doon nekk sax naan dama lay napp naan dama koy wax sama yaay damaa ñëw nga dàq ma ak yooyu waxuma kenn dara fii laay toog sax fi ñu guy mu nekkee sa sëy soof bi moo tax nga nekk naan nag may dàq dew ma yow buñ ñuy buñ ñuy dàq yow buñ may dàq man ak yow ñooy ànd génnandoo kër gi. man de kenn du ma dàq. kon nag nga sa temps nga nekk ak Fatou Kiné mi bu la doon tóor ba di la wal ni tike dëgg. Hmm. du ma la maafel. xanaa damay saxal lem. soog maa <laughs> dóor waaw aywa Fatou Kiné ngi noonu. aywa Fatou Kiné ngi noonu. ragal ba bëgg a dee sa balan bu bari Fatou Kiné lu mu fi rek loolu la fi fekk daw ma ko te tiitu ko soof. gis ngeen de waa gàlle bàyyi nii de. ah fi may gàlle waaw fii la waaw dafa neex a dalloo. Eh, <laughs> eh. ah fii de dafa neex fii laa fi nekkee de. ah dëgg la kay. na ngaa sonn si jàmm. yaa si jàmm ça va. ça va waaw. yeneen kuul. ngi si dara de. la yore. ah man de maa nii rek. ah yaa rek. maa ngi rek. kii la noonu la. mais bu ah gis naa ko de sama sama boy baa ngi nii waaw gis si ñoom. kontaan naan. moo de. na. naan leen de baax ah. billaay na. naan leen. billaay baax na. ah. baax na de. ndax sax bëgg leen. ci merci baax na. na ngeen naan doore ñëw. <laughs> a de. waaw ko nag. fii waaw man de ku ñëw fi daa lay jëndal boisson. waaw dëgg la garaawul de. kon naanu leen dara. déedéet merci. juma maa doon yéen. déedéet baax na. merci. tey sama gars yéen de moom dara baax na moom. waaw yaa ñu gën a baax de. waaw seen ñëw bi moom kontaan naa. ah ñoo la gën a kontaan. gis naan maa lay bàyyi ngeen waxtaan. bàyyi kat maa lay bàyyi ñaan ngeen toog waxtaan. déedéet. ah lan moo tax déedéet. loolu warul bay. lu tax nga ne wóoru. bañ ñu ñàkkase. Ah, mais baa ngi toog rek du tey kese mais bu dul dara sax yéen ñaar yaa ngeen nekk du tey kese ngeen am ngeen droit toog yéen ñaar wéet waxtaan. waaw nekk suñu intimité. yee la man de xaw ma bàyyi la nga waxtaan. bilaa ko loolu wóorul. Ah. déedéet dara nekk si. nee naa bilaa ma ko yow tey nag ko def. lan tey di nga ko def. non bilaa ko góor ak jigéen. war ñoo wér. mais dara yéen ñaa yéen a nekk am ngeen droit toog waxtaan loolu si dara. ah ah non non loolu loolu wóorul. léegi seen bopp dara nekk si. ah ko bàyyi leen ngeen toog. non billaax bu ñu bàyyi. ko bàyyi leen ngeen toog waxtaan. jàmm toogal billaax ñi ñu toogandoo moo dàq. yow maa yow nekkuñu tamit. yaay jum moo nekk c'est la première fois nag xanaa ah, tey nag di ngeen toog nag waxtaan ngeen nekk seen bopp tamit. xanaa bàyyi la ngeen toog waxtaan tamit bu ñu bu ñu bàyyi xale billaay bàkk xale xale bàyyi bàyyi la ngeen toog waxtaan. xale bàkk ak xuraan laa wax bu man bàkk ak xuraan la ba nekk nàmp ba tey mosuma nekk jigéen nag. waaw tey di nga nekk jigéen tey moom di nga nekk jigéen. tey moom di nga nekk jigéen. ah waaw. waaye waaye waaye yoon ñu ne. déedéet déedéet toogal après toog garaawul mais pour tey moom. waaw gérer leen de. waaw léegi waaw gi après ma ñaar. non ñun ma maa ah, ñu damay xool situation gi waaw waaw kon ma ñëw dégg nga toog leen baax nga. ci jàng kii day dof-dof rek di bandi bandi. bandi bandi nga xam ne ko gën bandi la fii tey. maman bàcc alxuraan ci jàmbaar la nag. kii moom hmm. damaa rusloo sax. kii kay kenn xamul ban saa baax nañ ko gérer léegi. incha allah. gis bu ñëwee fii laa leen bàyyi yéen ñëw. moom mi ngi ah, di woote waa kookaale kookaale juma waaw waaw waaw pen la waaw waaw wuy ma ñoo ñoo ñoo fekk leen ba yoon marché ba waaw waaw maa ngi marché ba ñoo leen foofu. est-ce que wér nga yow kañ nga fi génn bay dem marché. xam nga la na njëkk na njëkk tey na mujj tey man ma dootuma àndateeg benn jigéen ma ñëw fi nga may def si fi ñàkk fay di ma rusloo nii ci kanamu jigéen. ah comme noonu la amul benn problème loolu yow la loo def sa problème la léegi yaa may dee gis ka ñëwuñu ñëwuñu laa la wax ah, mais di nga xam ne sa néeg boo ñëwaatee doo fekk dara lépp loo fi denc génne nañ ko yépp yóbbu. jël lépp yéen a xam jël leen lépp waa lekk leen bagage ñaaw man maa ngi si yoonu marché ci ñaari jigéen bëgg maa seq man benn góor ah yor nànk ñëw si néeg bu bëgg maa fëgg ay fëgg la leen bëgg foog ma leen bëgg a fëgg mais day xam bala ñu ma fëgg dina daj lu metti mais man booy yi tamit xanaa yeneen góor nekkuñu fi tey benn góor rek ni moom rek moom rek te xal li gën a garaaw may man man man maa am problème booy ñoom ñëppay ñëwandoo góorub la ñuy def ñoom ñëpp def seen kooba ni waa ji na leen fëgg waaye di ngeen xam ne kullu aj kullu aajee ko man ah seexana man wala nga ne mokk sama suusal bii di ngeen day dagg de nga fu ngeen di mokkee mooy problème bi voilà man si mbaar yi laa bokk si booy mbaar yi laa bokk réewu leen sax yéen réewu leen sax yoonu ngeen ma mën a fekk duy sa kanam oui. sant alhamdulilah. ah wax ma lool tey mën nga fi man maa bëgg nga fees la tey. Mhm. yow laa wax nga ni ma ok baax na. yaay de laa doon waxal. ah Moodu ma sa xar bu bees. waaw ñu ngi yéen de. waaye jëlante ngeen de. Hmm, def. waaye nopp nga ko daal. ah si yoon bi de laa nekk nii. si yoonu nopp. lan moo lan moo dugal ci moom dafa rafet daa xaalis dafa baax ah. moom. waaw dama ko bëgg rek ma bëgg ma mu taxaw ma woon dama. waaw ah, mbëggeel moom gaaw na de yéen moom yéen xale yi léegi moom seen mbëggeel moom vite fait la ci comme connexion. ah. loolu daal nga yaakaar. yow kañ nga génn ci relation boo xam ne yéen ñaar yàgg ngeen ngeen bëggante lool. meroo am ku nekk dem yoonam nga war fee mën a bëggaat keneen ci diggante bi bëggante bu gaaw bii nii loolu jaaxal na ma trop. gis nga daal yaay lenn moo fi am man jigéen laa damaa romb bëgg ma ma bëgg ko ñu ànd nekk tamit. maman maman maa nekkoon di làqutu sa ginnaaw sa souffrance leen laa lay wax de li nga sa xol bi soo ko yàqee di misère. li gën a métti ci àdduna mooy nekk koo xam ne bëggoo ko surtout nga sëy koo xam ne bëggoo ko ak a metti doo ko muñal doo ko yërëm sa yoon nekkul ci moom ba pare yow à ah, vie doo am bonheur fuñ la fekk yaa ngi fuñ fuñu di mer ku la romb nga bëgg koo saaga te kenn def la daal xam naa li ma la wax ay jigéen du bëgg day miin yooyu amu fi de te sa xol bi ku ko ubbi Ka Junior mais nga ci bëgg xaw ma lu la jaral lii waaye mbaa xam ne yaa ngi dem ndox mi. mbëggeel du lu ñuy foye du lu ñuy kafe li nga fekkee dangaa jafandu ci moom tout simplement pour oublier kaaw bës dina ñëw moom mu bëgg la lool léegi instant yooyu nga koy bàyyi waaye soo ko bàyyee nag te moom fekk moom attaché wu na ci yow ba pare doo ko yàqal xolam doo ko tooñ doo ko ameel àq. loolu du si am yaay du ci am da ko bëgg trop trop. waaw ah, pour l'instant bëgg naa ko ñoo ngi soog a dund instant bi dañuy dawal xool lu ñuy am. ah man de wax naa li ma xalaat te damaa xam ne ah bu subaa di nga toog toog sa ruq di joote kenn du la def dara de léegi nag looloo la gënal ah demal en tout cas maa la njëkk ci àdduna maa la gën a xam àdduna ba ba léegi nag maa ngi wax ak yow bëggoo maa déglu waaw ah, baax na. waaw oh, yaay bàyyi yaa ngi sa ataaya bu dul jeex. waaw mooy sa taal yéex. mu téléphone. fuural téléphone fuural. day jànku nag fu ne nii de. <laughs> waaw na fexe nag ba bii yoon nag sama nu tëdd sax jëkkër ji na ko may ataaya nag kaas na fees nag te tokkoon taan kaas yooyu moom eh, eh, eh, kaasu kan kaasu kan. ataaya bi xam nga lan la. yaa ngi may tooñ. ku lu tooñ bu ko tooñ. ñii nee na man saxaluma seen dara. sa turandoo yaay ma ataaya. sama fuural sama turandoo yaay. sa ataaya téye ko yow ak sa ndey ak sa baykaaw. yow nag yaa ma tooñ man mi yaa may tooñ te tooñ bu ko tooñ ma wax la nga bàyyi ma ñii bàyyi ma ñii yow amoo jot kaawa ni nii nii sama doom gi doo yow doo ma kaaw ma wax sa bëgguma bàyyi leen yow nag ku may nag yow yaa tax ma yàpp ma yow su ma ñu yebee rek yaa tax. pourtant nag eh, nga mel bàqatoon moom yow amul amul boo ko man dara dégg nga ba ma dina seen lépp yéen lan la ñax bàyyi fii ñax bàyyi ba lan la man ñàkkuma ah doo faqiir. waaw naanu du ma Abdou Zaman du ma dara nag baleen ma. yow yow bàyyi nii. waaw naanu. waaw. jërëjëf baal ma àq mama sama kaas maa ngi ci nekk. eh eh xoolal fii yow yow ataay doo naan yow doon naan. ay waay ndaw Sam yow yaa ma moom. maa la moom maa la moom. yow sama kaas yow ban maa la moom yow. fekkee ne nga yaakaar ne man la damaa ñàkk wala damaa perte ndax nga seen bopp waaye ndax ataay fu lu neex. ba may lekk ginaar boobu yow lekkoo ginaar ba may xam ataaya yoo xam nga ataaya ba may dugg piscine sangu piscine sama garçon ma leen yéen dimbali leen ma bu joxe naan ay jox ko mu añ jox ma reer mais man man man ma mais li ka kaw ma yema naa si baax na rek naa jël fleur bi ubbi loolu a rab de kii tamit man de lay bañ ma man moom su ma nee wax muy ma ultime musuma may ma wax. man daal ñii dañ maa jaaxal. Mm. man seet naa ba sonn mais gisuma dara ñoom ñaar lan moo nekk seen problème seen papa eh, problème boobu su dee yow da nga koo nar comprendre c' parce que nekkatul problème loolu fii ba suba boo doon expliqué da naa ma yaay comprendre ma comme ay mathématiques. Ah. faam seet rek. métti na la. yow eh eh eh. ba tey eh, wax la encore eh. tournel loo xam tournel mami nag lépp tuuru mami man ñàkkuma mhm. ba nga may bàyyi fii dem fee naa nga naan ay livre ak des yaa ngi dégg na njëkk affaire yi nag bëgg ma ko ah mami yow lan la bu ñu waxee naan ñax bay xaaral naan fii léwal xaaral naan yow man man man man damaa ñàkk quoi man ñàkku ko. ñoo ko bàyyi eh. a naanee. am naa ko mën naa ko. booy attaaya laaj man ma ñax daa ma jox la moo nga dem nga dem fee dinaa ay attaaya yaa ngi dégg fu ma neex lay naanee ah fu ma neex may wax uh-huh. gis nga bis ma ñëwatee gis la ngay naan attaaya fule uh-huh. bis boo ko naanee seen kër nday est-ce que bàyyi fa nga koy gàllee muy yéen waaw <laughs> lii de olof ñaay naan ko ci ba wax mu jël jëlal damaa sonn damaa tay damaa damm barki démb Njaay la fi mbeen njëw mbeen samay sa kër lépp xam na ko xam na pression bi nga may teg fatt gi nga ma fatt waaw boo wax ma la ko fay naanee fii dem àggale ko sama kër day ah loolu nga wax. nga xam ne ba nga ma naan def doxaan nga ñëw fa riita mbal fa ba suñu melentaan kër yëpp jeex. Ah, ok yow nag yaay yow yow yow yaay yow. Ah. yow lay ni yow xool ma tey na mel dem ak tey wute na maa sànq defar ba nga mel ni nga mel yow yow yaay baadoola ah. baadoola ni yow lay mel. yow Kaaw doo ko bàyyi ak famille. maa jàpp Kaaw. jàpp ay famille jàpp ndayam jàpp bàyyi ma xool yow loo ci mën. yow ndax yow turoo sa turoo ah. na na na turoo na turoo yow mami na turoo ah léegi ba xam ne ñoo xamal tuuti di ma yuuxu man sa jëkkër dama yuuxu man mami ah léegi da nga osé. xoolal maa osé ba jëppeeru. ah nga jëppeeru bis bu ma ñëwatee bis nga toog a fàkki na yow. <laughs> sinon rek da nga gis sama kër si biti. takkoo ma ma takk ah. Eh, da ngaa mën am baat bay maye. waaw maye du ma ko maye fii ah amatéré ah, fii fii kenn ma fi bis boo ko mayee nga xam lépp lépp dëgg la bis mu ñëwee ci biir leex lu ma ko mayee fii bi ancéré bi bi yow man. yow mën nga ba naa ko man. prix mayal. bis ma bi ndax na bis dina ko seede di nga xam quoi ay mami mami mami nag damay xam muy ëtt muy ëtt le temps ah, yow yow man di ma teg affaire faqiir yi pour la man man damaa ñàkk bis di xam ne man man ak kaw maa takk wala kaw wala takk.